<laughs> salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum sénégalaises yi ak Sénégal la gaal lom <laughs> damaa jàng ba toog ne ar war leen woon na Sénégal yéen ñëpp xam ngeen ne man maa ko mën a yor Sénégal boo leen xoolee ngeen jàng jàngaat man rek maa fi def lu fi kenn deful ana cere baasi <laughs> ana cere mbuur léegi la fi am. dangeen ma war a fal boole ma falee laa lay wax surtout yéen waa batu waa batu li ngeen def ci man kenn defu ko <laughs> yéen xam ngeen ma xam naa lu jëm ci ginaar gi kii xar béy nag bu leen bëggee anaconda sax ma indil leen ko <laughs> ba saa yoon defar berndale rek duma leen fàtte nag yéen samay mbokk Tiwaawan yéen waa Touba yéen waa ginnaaw raay yéen waa Sigicoor <laughs> gis ngeen boole ma falaatee rek du ma def pont de tracteur laay def muy gas di dem di gas ay souterrain rek ngeen di am Casamance maa leen ko wax da maa war a voté béy ceeb bi da ngeen cee waaw il est temps ceeb bi ñu koy ajji ci kaw <laughs> waaw gis nga nag bu ma campagne ba pare nag damay bale <laughs> laqal ko jën yi gisoo laq naa ba pare nag ay sompaat <laughs> waa andi ànd bi yow na ñëw gis ngeen yéen nag senegal da ngeen war a ubbi seen bët ngeen xool xoolaat ba ma fi nekkee ba tey cuuraay di gilli <laughs> naq sa bann kay tëdd fanaan nooyil te jóg waaye woon xam lu fi daan daw piis <laughs>